docteur Omar Dieye euh, université Cheikh Anta Diop de Dakar jury 17 19 CEM Darou Salam daanaka ci li ñu nekkoon mën nañu wax ni jeex na léegi euh, examen yi ça s'est très bien passé au premier tour comme au second tour on n'avait pas de couac des cas de fraude ou d'incident la surveillance s'est très bien déroulée et je pense que ni lii rek la ñuy ñaan aussi qu'on travaille en ensemble en toute équipe et puis liñ ci nam yëpp ñu am ko ko balaa mooy ñëw ci second bi premier tour euh, def nañ ko ba pare. donc ça s'est bien passé comme ni ma ko waxee woon L1 L prime 1 ñi ngi woon ci cent trente candidats L2 ñi ngi woon ci cent quatre vingt treize candidats donc pour un total de trois cent vingt trois dans le centre CEM Darou Salam euh, ci premier tour bi euh, amoon nañ ci L prime 1 bi quatre admis loolu daal moo ci xawoon a doy waare yoo xam ne ñoo jàll euh, admis xawoon lim bi daal takkuwul tuuti na lool te xam naa ni certainement tamit ci niveau élèves yi lay doon tension demee noonu. mais luñ ci mën a wax rek daal loolu moom doon na li ñu marqué daal ci centre bi daal nga xam ni at mii moom à la bu ñu def defuloon attention sax xëy na mënoon na gën a wàññeeku wala sax du am <laughs> daanaka loolu ay mbir yu yu yu doy la waaye nag xëy na loolu yëpp dañ koy teg ci wala dans le cadre tout simplement de lu yàlla dogal ko ak loo xam ni tamit niveau élèves yi la dans tous les cas waaw kon léegi ni ma ko waxee rek quoi el premier premier tour bi donc amoon nañ quatre admis ak 46 euh, yoo xam ni ñoo admissible ci l bi amoon nañ 20 euh, admis ak 41 yoo xam ni ñoo admissible léegi bu ñu ñëwee nag maintenant ci L2 euh, ci deuxième tour bi deuxième tour bi ci 46 admissibles yi en L prime 1 41 yi jàll nañ mais malheureusement lu ñu mën a déplorer mooy cinq a 5 ajournés ah. lu metti la ci deuxième tour bi ndax ah, daanaka ba ci étape bi ñu téye la tamit lu metti la. comme la moitié waaw ñëpp jàll nañ presque. xanaa cinq ajournés yi rek moo ci xaw a doy ndax ndax 46 lañ woon ci L prime 1 bi. donc 41 yi bu ñu jàllee. cinq yi ñu ajourné leen. ah dina xaw a daanaka metti tuuti. mais loolu daal lañu ñu mën a daanaka xaw wax ci lu jëm ci euh, premier tour bu ci L prime 1 bi. L prime 2 bi euh, on avait 41 candidats yoo xam ni ñoo admissible. 38 yi jàll nañ loi yi daal lañu lañu la ñu ajourné waaw mën nañu wax ni daal loolu moo fi am parce que on avait cinq cas de repêchage yoo xam ne finalement ñoom ñëpp repêché nañ leen euh, globalement loolu daal moo fi tendance bi ci logiquement daal lu ñu fi mën a noté ci CEM Darou Salam moom koy xaajul àgg foofu ndax lu jëm ci wàllum pourcentage yi moom mën nañu wax ni on est loin même de de ce qu'on appelle de ce qu'on prévoyait parce que en l boo xoolee c' est 58 ñoo jàll au total premier tour ak deuxième sur 193 donc c' est un pourcentage de 30 virgule cinq pour cent mën nañu wax. L prime 1 bi tamit les résultats n' étaient pas du tout aussi euh, fameux ci ni ñu ko xalaate woon daal. loolu moom je pense que foo ñu insister ci parce que mën nañu wax ni l' année était complètement perturbée manifestation yi fii conditions yi ah. crise bi ñu nekk ak yooyu donc nekk nañ ci dëkk boo xam ni daal il faut tenir bon pour mën réussir daal dans tout ce qui est concours examen et autres parce que àdduna bi léegi moo jaxasoo day laaj une grande concentration laaj un encadrement également des suppléments d'efforts ñëpp war ko mën a def pour réussite bi mën a mën a am mais mën nañu wax ni daal l'année n'était pas du tout comme on l'aurait souhaité mais dans tous les cas nous étions tenus pour ñu organiser baccalauréat bi comme tous les concours comme les examens également euh, loolu daal lañ ci mën a jàng ci lu jëm ci examen yi daal ci 2023 bac moom souvent ñu ngi ciy def ay assises yi ci xalaat donc pense que nii ñëpp bu ñu dégloo rek muy autorité compétente yi directeur de l'office bac li ci war yëpp war nañ ko mën a def je pense que nii nu ko war a gën a mën a faciliter pour l'organisation rek et également tamit surtout pour les épreuves ñu ñu def ci beaucoup d'organisation ñu xam exactement yi joxe ak les sujets Euh, revenir également tamit sur les consignes yooyu yëpp je pense que bu ci IEF yi jàppee IA yi dina mën a am une solution par rapport à luñ ci xalaat yëpp daal. niveau bi moom il faut le déplorer man dama gis ni day gën di wàcc rek et je pense que sa demande un encadrement bu mat sëkk que ça soit dans la banlieue que dans la ville élèves yi day laaj un encadrement laaj un suivi parce que baccalauréat du caaxaan c'est le premier diplome de l'université donc boo koy def war nga mën a am taxawaay ak matuwaay boo ko war a mën a defee. mais lii ñu gis nii il faut quand même plus d' encadrement ci élèves yi ñu jàppale leen des cours de renforcement même bu ñu ko mënee seen kër yi mais également tamit ñu jàppale leen ci lycée bi ci privé bi ba ñu mën a am un suivi total ba noppi di respecter surtout le volume horaire bi nga xam ne moom lañu ñu war a am très important parce que bu ñu ko respecté wu rek une fois ñu am ay prescription en Europe ou ailleurs mën nañ leen laaj un nombre d' heures boo xam ne amuñu ko loolu ça d' être très compliqué pour les prescriptions on commence à demander le volume horaire que l'élève a fait donc dañuy ñaan mu doon année bu dal année boo xam ni daal d'ici 2024 que ni ñu ko bëggee woon rek ni ñu ko amee sant ñëpp surtout sant nag ñi nga xam ni aussi mooy les organisateurs d'abord des autorités compétentes depuis l'État en passant par les autorités de l'Office du Bac et autres euh, le directeur de l'Office du Bac le superviseur également Mansour qui est de Thiès que je salue au passage et qui fait un excellent travail de supervision comme pour l'ensemble de superviseurs aussi qui le font dans toutes les zones et dans toutes les localités. Donc ñoom ñëpp ils abattent un travail remarquable il y a également des coordonnateurs de de de, matière et de discipline jaar nañ def nañ seen liggéey mais également les correcteurs ils sont venus à temps les examinateurs et surtout équipe bi ma am ci secrétariat bi les trois dames yi ma am jàppale nañ mooy ci liggéey bi et le chef de centre également il a fait son travail rek élèves yi mooy ñi nga xam ne jàll nañ ñu ngi leen di féliciter. ñi nga xam ne nag dañ leen téye ñu xam ni kuy dugg ci concours day am wala nga ñàkk mais di la encourager surtout ñu gën a relever waat qu'ils tiennent bon